ولتعطفي بنزلة تأتي لنا بزفر رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله علي العظيم موكيني تيولو سن وقتانو بس بي تاي منغي وخاك يو تي خيو خيو بو خمنا خيوانا فكفان أجروم نار تي ويري كور تومبي فكفان أكنيات تي ويري مارس ci 624 bés boobu ku ko dégg rek sa xel dafay dem ci Badar Badar mu ngi xewoon eh, ci ñaareelu at ci gàddaay wi ginnaaw bi nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi wa jóge na Makka jëm Madina ba mu am ñaari at ñaareel at ba nag ca koor ci fukkeelu fan bi ak juróom ñaar ci la badar xewoon badar nag bés la boo xam ne bésu liberté la ñeel lislaam waaye bés la boo xam ne itam keroog la lislaam tàkk keroog la lampab lislaam jolli dañu itam bi jolli ba bésu jonnab tey jii depuis ca 624 ba léegi depuis ci ñaareelu gàddaay ba ba léegi nga xam ne ñu ngi ci junni at ak téeméer ak ñaar fukk ak ñeent wala junniy at ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ba léegi bés boobu la lampab lislaam daal jolli ba fii ñu ak ci tey bii bés boobu la lislaam tàmbali nag jéego yu mag yi ginnaaw fukki at ak ñett yoo xam ne def nañ ko ci makka fukki at ak ñett yoo xam ne fukki at ak ñett ci restes la muy naqar ak coono waaye naqar bànneex waaye tamit coono bànneex parce que liggéeyal yàlla amul naqar liggéeyal yàlla amul coono li ci nekk rek mooy bëgg-bëgg waaye tamit ak jeex ci yàlla waaye dëgg-dëgg coono moom bu nit di daj rek ci mbir ñi àndoon ak ca daj nañ ko nañ fa mar nañ fa tëj nañu leen bàyyi nañu leen sosal nañu leen ba keroog bi nga xamee ne am na ndigalab gàddaaye jëm Madina sànq wax maa ngi wax ne yonent bi fukkaat ak ñett yim def ci Makka fukkaat ak ñett la yoo xam ne risque la woon bu duxul woon na yàlla lay hooteel waaye saa su nekk rek yonentu lu ëpp junni junni nit ñu ngi xëy ci moom di gont ci moom di jéem lu ko rey di jéem lu ko wàññi ku nek rek la nga xam ci mbon ak hees fexé nga ko ba toro bi nga xamé né yonent sallallahu alayhi wasallam sallam na makka jëm madina guddi gi sabab sax gàddaayam guddi gogu dafa fekk yonent eh, saha eh, nun kretin yeferi yi daje woon te daaru nadwa wax ne il faut bi di muhammad ñu fexel ko parce que wooteem bi mu ngi commencé lejeul mu ngi ñuy commencé xatal ndax bari gi ñu commencé bari kon il faut que ñu dal di ko sàkkal pexe daaru nadwa nak mun nañ wax ne moy seen ensemble bi nga xamné fa lañuy wote wootee ni loi yu bon yi fa lañuy ñuy lepp bepp ñaaw tef bu ñu bëgg rek fa lañuy dajé pour dogalé ko fofu manam fofu lañuy dilé ay ndogal bobu nak am benn waay joo xam ne mu ngi woon ci seen biir waajooju waaju gàtt la lool tuuti ci jëmm waaye boo ko xoolee di nga xam ne mag la mu ñoo dugg ci seen biir toog noppi di leen déglu ñuy fexe am ku wax ne daal yonent bi bu ñu bëggee noppale ko ci ay mbiram nañ nañu nañ ko jël tàkk ko ci ñaari gëlëm tànk bi ñu teg ko ci gëléem bi tànk bala ñu tàg ko ci gëlëm bala ñu ñu dàq gëléem yi ñu féewaloo su ko defee mu xar ci digg bi dee benn yoon rek paa bi ñu leen may leen ma ñu ne ko may nañu la góor gi loo bëgg a wax mu ne maa ngi leen di waatal ci yàlla ne loolu su ngeen ko defee xanaa da ngeen yaakaar ne Muhammad moom amul ay mbokk kon ay mbokkam danañ leen rey ba ngeen jeex loolu moom du xalaat bi am ku wax ne déedéet xam nga nu ngeen di def dañ koy jàpp rek xew ko ci benn gëlëm bàyyi ko ci kaw gëlëm bi dàq gëlëm bi mu dugg xàll su ko defee dana dem di torox di xiif di mar ba far dee yéeféer moo bon xalaat paa bi jógaat ne leen yen yéen di dama yaakaar ne seen xel yi duy nàcc yéen de xana da ngeen yaakaar Muhammad amul amul mbokk loolu taxut mu dee loolu mënul kaa rey ñu ne ko waa góor gi yow nag léegi wax ñu naka la mu ñu leen xam ngeen ni ngeen di def da ngeen koy bàyyi ba mu tëdd xam ngeen moom du tarde julli fajar ngeen ñëw e, toog ci buntu këram yéen ñëpp nag bu kenn des na ñëpp ñëw toog ci buntu këram xaar ko mu génn bu fajaree bu génnee rek yéen ñëpp ngeen àndandoo rey ko su boobaa duñu mën a xam ne diwa ko rey wala diwa ko rey dañ leen di laaj galak rek ngeen joxe ko mu jeex mu ne ko hee góor gi sa xalaat boobu jub na de waaye nag ñu problème mooy ñun bu ñu nekkee ci suñu naaneekaayu sàngara yi ba doyal bu ñu paree suñu naan yi rek dañuy nelaw te bu ñu nelee dañuy nelawee dañuy buddanti góor gi ne len ah man de bima yalla sakke batay ba ne law lolou kay du problème man na le na he ñu ne ko kon ñu ñew nak tok ci buntu Muhammad ñi ne nañ ci buntu kërëm lañ lañ tedd lañ tok tok fa ba nelaw nelaw fa nelaw yu reey ndigal wacc yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñu ne ko Makka jëm madina bi muy dem ci la wo seydina ali ibn abi talib ne ko kay xaar ma ci sama neeg bi yëkëti lepp lo xamne ne euh, joxon nañ ko ko ci ay ndénkaane mu ne len nang leen ko nang leen ko jox kenn ku nekk mu wax lam ci am ne ko nak sangol sama malan wu xonku wi nga tedd fi ci sama lal bu tedd bi ila sayyidina ali karramallahu wajha tedd fa comme ci ne mom mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi génn ànd ak Abubakar wax nañu ne bés boobu dafa jàng suratu yaasin bee ci laaya boobu nga xam ne day wax ne fahum laa yubsiruuna yaasin wal qur'aanil hakiim innaka la minal mursaliina de foofu mu xàgg ne fahum laa yubsiruuna ñu ne fekk dafa tibb suuf ci loxoom daal dëkk ëpp ci seen kaw ñoom ñëpp nag seen melaw yi gën a diis ba ci góor googu doon wax ne masut nelaw ba yàlla sàkkee bi ko yàlla sàkkee ba booba bés booba góor googu dafa nelaw bay bëgg a dee yeewu wuñu xeewu wuñu xeewu wuñu xeewu ba ay 9 heures 10 heures naaj bi lakkale naa lakka lakka lakk ñu tëb rek jógandoo ñoom ñëw yuuxu waaw ñun fu ñu nekkoon ñun fu ñu nekkoon góor gi leen garanti loon ne da leen di xee góor gi leen gën a nelaw ñu yee góor gi ne ko yow góor gi yaa mën a fen yow nga ne bi la yàlla sàkkee ba tey masiloo nelaw yaa ngi ni dangaa nelaw bay bëgg a dee mu fuddu fuddu seytaane boobu rek ne wallahi man musuma xam ne sax nelaw ñu la neexee ana muhammad ana muhammad ana muhammad ñu daw dem wutali néegam daw dem ci lal ba yëkkati malaan wa rek ñu gis ne kii fa sangu ñun eh, Seydina Ali la ñu ne ko Muhammad ñu ne Muhammad dem ñu ne Seydina Ali ana Muhammad mu ne gisuma ko yéen laa koy laaj ana Muhammad ñu ne gisuñu ko yow laa koy laaj léegi nag ñu dañuy topp tànk yi nag ñu dañuy topp tànk yi bés boobu nag ci la Seydina Muhammad sallallahu alayhi eh, wa sallam ànd ak Seydina Abubakar ni Sadiq radiyallahu anhu ñu àndandoor nag daal di dem yaa ngi dégg foofu ca Madinatul Munawwara gannaaw loola nag ba mu am ñaari at ci la Badar xew Badar waa waa Makka dañoo demoon jaay te jiite woon seen jëgg ba abou Sufyaan la tuddoon Abu Sufyaan sax wax nañu ne bay tax la ci nun ci la Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ko defee nag Abu Sufyaan yëg ne saxaaba yi ñu ngi leen di nekk ci yoon bi te booba sax sa ñoom amuñu woon ndigalu xeex parce que booba Yonent bi sallallahu alayhi joxewul woon ndigalu dem dajeek ñoom pour xeex waaye abu sufyaan yónni ku ñuy wax abu dam-dam ne ko demal dawal nga dem makka ne leen muhammad dab na ma dab na suñu njëg yi te dañoo fas yéene dañoo fas yéene reyante ak ñun abu dam-dam nekk naa feq boo xam ne kenn xamut ni mel abu dam-dam yemul ci loolu de dafa dem xaañ boppam ba deretam di tuuru rek jaar biir makka ne ñëw leen ma wax leen xabaar ñëw leen ma wax leen xabaar abu dam-dam lan la mu ne fekk leen ma ci kaaba ga ma wax leen ko abu dam-dam lan la ñu ne ko mu ne leen fekk leen ma ci kaaba ga ñu ne ko lan la mu ne abu sufyaan de muhammad moo leen dab gis ngeen man sax niñ ma def dama daw waaye nekkoon dañ may rey te booba loola amul naa fekk ñu ne ko mu ne leen bu ngeen yiixee muhammad ak ay gaayam danañu rey suñu njëg ya ba ñu jeex tak yaa ngi dégg su ko defee nag ñun ñëpp ñu daal di rek abu jahlin daal di bokk nag ne wala bés bii nag laa doon xaar nag xamoon naa ne lu mu yàgg yàgg danaa daje ak muhammad tey tey danaa taal sama safara danaa rey sama gàtt danaa naan sama sàngara si parce que tey laay teqale muhammad ak jëmmam legi ñom ñep na rir nak wutal wuutali njëgg ba ñu ñom Abu Sufyan ñu leen ba dem leen ya na manam nañ delu njëgg ye mucc Abu Jahli neena mok mukk du kasna ko def comme man xasna be jog ak sama arme bi damay dem rek ak Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam il faut ma lok mom tay moy indi Badar ah xex ba nak tambali yonent bi sallallahu alayhi ba mu yëgee gaa yaa ngi leen di ñëwal ñu ne nag gaa yi du ñu toog ba gaa yi fekk suñu si dëkk bi ñu dem daje ak ñoom ñu daal di départ war a daje Badar Badar wax naa ne dafa nekk diggante Makka ak Madina mandarga bi dafa amoon teen bu fa nekk moo tax ñu koy tuddee Badar ñi nga xam ne ñoo jiite woon armée jullit ñi yonent yàlla muhammad la sallallahu alayhi wa sallam ak hamzat ibnu abdul mutalib ak abubakar ibnu sadiq ak omar ibnu alxataab ak ali ibnu abi talibin ñii ñoo jiite woon armée yonent ñi yéeféer yi ñoom abu jahlin moo leen jiite woon ak otbat ibnu rabiata ak umayat ibnu xalaf ñii ñoo jiite woon armée yéeféer yi Euh, jullit ñi booba temps guerre boobu 313 rek lañ woon 313 rek lañ woon ñu ngi amoon ñaari fas bu neexee bu doon jamono jii la naan ñaari genre de combat la ñu am yéeféer yi nekkoon nañ junni mil nekkoon nañu ko amoon nañ ñaar temeru sar de combat wala ngay ñaar temeru fas ni ne nañu temer la ni ne nañu ñaar temer la ñu ay oppale nañ julli ñu lu bare bare si xare bobu ah, julit ñi ñak nañ ci fukki nit ak ñent juróom benn yi ci muhaajiruuna yi lañu muhaajiruuna boo ko déggee mooy ñi jóge màkka ànd ak yonent bi salallahu alehi wa sallam dëkk ak moom madina jurom ñetti euh ci wa ansar la wa ansar moy wa madina 6 personnes yo xamne wa makka lañu kéro lañ leen ray ci khare badar 8 8 personnes ci wa ansar kéro lañ leen ray ci khare badar yéféri ñom ray nañ ci ñom 70 ñu japp ci ñom 70 ñi ci dess daw yaa ngi dégg ñi nga xamante ne ay suhadaa lañu dañoo shahid te bokk ci muhaajiruuna yi ubaydat ibnu haris ibnu abdul muttalib ibnu abdul mannaaf min qurayshin kii ci jullit ñi la bokkoon keroog lañu ko keroog la shahid maanaam keroog lañ ko rey keneen ki ci topp amir ibnu abi waqaasin la tudd moom itam doomu ndeyu saadu la saadu bokk na ci fukki nit ñi nga xam ne yonent déggalee na leen aljanna keneen ki ci topp mooy Simalayl ibnu Abdu Amrun Xazaa yi moom itam ci la bokkoon ak Aqil ibnu Bakiri Laysi moom it ci la bokkoon ak muhja momi tamit ci la bokon ak haris ibnu safwan al fihri juroom ben yi ñoy ñi nga xamne makka lañu joge won te ñu rey leen ci xare badar juroom ñet nit ñi nga xamne dañ leen a rey te ñu dekkon ca madinatu ñu leen di wowe ansar bokku ci sa'd ibnu xusaymatu kooku mu ngi bokkon ci banu aus keneen ki mooy mu Bashir ibnu Abdul Munzir moom it ci awsa yi la bokkoon keneen ki si topp mooy Amir ibnu Hammaam moom ci banu Xasraj la bokkoon ak Yazid ibnu Haris moom it ci banu Xasraj la bokkoon ak Raafi ibnu Mu'la ci banu Xasraj la bokkoon Xaarisatu bintu Suraaxata moom it ci banu Xasraj la bokkoon ak Awf ibnu Haris al Musamma ibnu Afraan moom it ci la bokkoon ak maouz ibn haris yang deg dégg tam ci banu xasraj la bokkoon juroom ñet ni ñoy ñi nga xamne ci ansar lañu bokkoon ñu reey leen ci xare ci xare badar juroom ñaar fuk yi nga xamne dañ leena reey ci yefeel ñom par ngir lañ leen def ngir moy fami deg ñom ñi bokk ci famille Abdou Shamsi ibnu Abdou Manafil fukk lañ ak ñeent quatorze personnes lañ rey ci njiit googu comme ça nga ne séeréer si wala ñu ne famille ñangeen famille njaween rey nañ ci ñoom nangam ci xare sangam léeg-léeg da nga koy dégg noonu la demee nag eh, bani Abdou Shamsin Abdou Manafil te Abdou Manaf ñii maamam yonent yàlla Muhammad sallallahu yi ci la bokkoon moo tax ñi daan xeex ak yonent bi ci Badar ay mbokkam lañu ñooñu yéeféer ñooñu kiñ ca njëkk rey mooy Utbatu ibnu Rabiata ibnu Abdi Samsin ci la bokkoon moom Ubaydat ibnu Haris mii nga xam ne moom moom lañu rey moom moo ko jamoon Ubaydatu ci julli ñi la bokkoon moom moo jamoon Utbatu mii jam ko wala ñu jamante après nag ali ibnu abi taalibin ak hamzat ibnu abdul mutalib ñoo ñëw jekkali otbatu ki si topp mooy sheybat ibnu rabiata moom hamza moo ko rey ki si topp mooy walid ibnu otbatu ali ibnu abi taalib moo ko rey ki si topp mooy hantala ibnu abi sufyaan yaa ngi dégg moom zeyd ibnu haris moo ko rey ci ndibalam yonent Yàlla muhammad sallallahu alayhi ki si topp mooy haris ibnu xadar mi moom nu'maan moo ko ki si topp mooy amir xadar moom ammaar ibnu yaasir moo ko ki si topp mooy amir ibnu abi amir ki ko rey mooy saalim yaa si ndimbalab abi xuzaymata ki si topp mooy doomam amir yaa ngi dégg bokk ci banu saadin ki si topp mooy ubaydat ibnu said ibnu asin moom zubayr ibnu awaam moo ko rey ki si topp mooy aasim ibnu saidin moom ki ko rey mooy ali ibnu abi taalibin keneen ki si topp mooy uqbatu ibnu abi mu'tin moom aasim ibnu saabit moom moo ko moom rey ki si topp yaa ngi dégg moom moo ko moom moo ko rey ki si topp mooy amir ibnu abdullahi moom ki ko rey mooy ali ibnu abi taalibin ki si topp mooy wahbin ibnu haris ak keneen ki si topp te mujj ci ñoom mooy amir ibnu zeydin te mu bokkoon ci yaman ci ngir gi fukki nit ñi ak ñeent lañ ci rey ci famille bii famille bi ci topp mooy famille nawfal nawfal ibnu abdu manafin ñoom ñaari nit lañu rey ci seen famille xaaris ibnu amir ibnu nawfal ki ko rey mooy xabib ibnu isaaf keneen ki ci topp mooy tuaymatu ibnu adiyin ibnu nawfal moom ki ko rey mooy ali ibnu abi talibin ak ak ak hamzatu ñom ñoko ray fami bi ñi wowe bani asad ibnu abdul uzza ñom juróom ñaar lañ ray ci ñom sept personnes lañ ray ci ñom zamat ibnu aw aswad yaangi ngi ibnu ibnu ibnu abdul talib kiko ray moy sabit ibnu juza ñi wax nañu ne dedet ali ibnu abi talib ak hamza ñom ñoko ray rey bi abu buxtaar ibnu Hisham ñu koy woowee Aas ibnu Hisham moom maj mujaz moo ko rey ibnu ibnu Zayyan al-Balawi moo ko rey ki si ñetteel ci ñoom mooy Xaaris ibnu Zamatu Ammar ibnu Yaasir moo ko keneen ki si topp mooy Nawfal Xuwaylidin bun Asad moom doomu ndeyu yaa ngi dégg xadijatu la wala nga ne doom baayu xadijatu bintu din la bu la neex nga ne rakk la ci bintu xadijatu ah, eh, bintu xuwaylidin wala nga ne magam la en tout cas doom baayam la moom it dañu kaa rey ci xare badar boobu ndax moom ci yifiri la bokkoon wax nañu sax moom mooy seytaane ba xurey banu xureysin moom mooy naafeq bu mag a mag bi kan ma ko rey ali ibnu abi taalibin ma ko rey ki si topp keneen aqil ibnu aswad bun mutalab moom ki ko rey mooy Hamzatu yaa ngi dégg ak Ali ibn Abi Talibin keneen ki si topp mooy Utbatu bunu Zeydin keneen ki si topp mooy Amir boo ñëwee ci banu Abdi Daar ñoom tam ñàkk nañ ci ñeenti nit yuñ ca rey ca xare boobu Nadar ibnu Haris ibnu Kuldatu ci la bokk moom lañ joxoon drapeau yéeféer yi ci xare boobu nadar mii ibnu haris ibnu kuldatu moom lañu joxoon drapeau yéeféer yi ci lañ ko rey moom it ki si topp zeyd ibnu mulisun ci ndimbalab amir ibnu hisaam moom it ci lañ ko rey kenn moo ko rey bilaal ibnu rabaax bilaal ibnu rabaax moo rey zeyd mii keneen ki si topp mooy nabi ibnu zeydin ibnu mulis keneen ki si topp mooy abid ibnu salib boo demee ci banu tamima ñoom ñàkk nañ ci ñeenti nit ñoom itam malik ibnu ubaydillah ibnu osman moom mook talxatu ñoom ñoo bokk talxatu bokk na ci asral mubashirina bokk na ci fukki nit yi nga xam ne bëggalee nañ leen aljana moom dañ ko da doon nëbbatu ba far ñu rey ko benn yoon ci nëbbatu bi ki ci topp mooy amr ibnu abdullah ibnu judani keneen ki si topp mooy amir ibnu osman ibnu amru ibnu kaabin ibnu saadin fan moo ko rey abu ali ibnu abi talibin moom moo ko rey am nañu wax ne déedéet abdourahman ibnu awfin moo ko rey keneen ki si topp mooy osman ibnu malik ibnu ubaydillah boo demee si banu maxzoum ñoom itam xaalid ibnu walid ci ci ñooñu la bokk ñoom rey nañ ci ñoom vingt cinq vingt quatre personnes Banu Maxsum mi ñoo ëpp ña lañ ca ñàkk ndax ñoom rey nañ ci ñoom ñaar fukki nit ak ñeent ci xeet wi ci ci ci ngir wii ci la Abu Jahlin bokkoon te Abu Jahlin moo jiite woon xare bi moom lañ ca rey mooy Abu Jahl ibnu Hisham te turam dëgg mooy Amr ibnu Hisham ibnu Mughirata ibnu Abdullahi ibnu Amrin ibnu Maxsum yaa ngi dégg moom dañu ko dóor jaasi kan moo ko dóor jaasi Muaz ibnu Amru ibnu Jamoo moo ko dóor jaasi ci ci tànk tànk ba daal di kan moo ko kan moo jëkkale tànk bu dagg bi Maazur ibnu Ifra moo jëkkale tànk bu dàgg bi waaye ki ko doggali dëgg-dëgg ba tàggale baat baag yaram ba mooy Abdullah ibnu Mas'ud yaa ngi dégg Abdullah ibn Mas'ud nii nag yonent moo ko garanti loon ne yow yaay Abdullah ibn Mas'ud dafa demoon Makka dem di leen jàngal abasa wa tawalla yonent dafa ne kan moo ñemee dem jàngi abasa wa tawalla ca Makka Abdu Abdullah ibn Mas'ud di wax ne moom ñeme ne ko Abdullah ibn Mas'ud ko lu gàtt la woon comme tungu ne ba mu demee rek di wax waxu abasa wa tawalla abu jahlin jàpp nopp bi dagg ko sànni ko fële ne ko wallaay boo nekkutoon sàmm doomi sàmm damay taggale sa baar bi ak sa jëmm ji mu dem si yonent bi sallallahu di ko jooy yonent bi ne ko noppil wallahi moom sa nopp dagg waaye yow yaay yaay dagg baatam keroog nag sa xare Badar bi Abdullah ibn moom li nekkoon objectif rek mooy gis Abu Jahlin moom lu rek la doon wër far yalla ne mu ñoo fekk abou jahal mi ngi tedd tankam bu dag nek ci digënde di ak dee mu génnee jaasem pour dogali ko jaase mënu ko dogali abou eh, abou jahal ne ko jaas sam man mënu ma man ta dag sama sama cër sama jaas bi moo mëna mën eh, a mu jox ci jaasem abou jahal ci jëmi bopam dagge ko bopam jël bop bu yobbu ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallam yonent ko wax est-ce que gëmoon nga ko ne woon naa la yow yaa koy dagg na sa nopp waaye yaay dagg baatam yaa ngi dégg noonu la demee ñaar fukk ñooñu ak ak ñeent wax naa la ne xaaris mii ci la bokkoon déedéet Yazid ci la bokkoon kan moo ko rey Ammar ibnu Yaasir mu ngi bokk moom tamit ci banu Maxzum bi nga xam ne ci la Abu Jahlin bokkoon Abu Musaafi al Asari Abu Jaadinatu moo ko rey ak Harmalatu ibnu Amru Xaarijatu bintu Zeydin moo ibnu Zeydin moo ko rey am nañu wax ne Ali ibnu Abi Taalib moo ko rey Masud ibnu Abi Umayyatu moom ali ibn abi moo ko rey abu qays ibn faake ali ibn abi talib moo ko rey am na ñu wax ne yaa ammar ibn yasir moo ko rey abu qays ibn walid ibn maghirata nga xam ne mbokk mbokk la ci xaalid ibn walid mii nga xam ne ku bañ di lekk yax fot la soo waxee xaalid ibn walid yàlla dina la musal ci yax bu lay fot xaysu mii mook moom ñoo bokk ay doomu ndey wala bu ay doomu baay lañu moom moo ko rey rifaatu ibnu abi rifaa moom tam ci la bokkoon moom saadu ibnu rabia moo ko rey munzir ibnu abi rifaata muin ibnu adiin moo ko rey saib ibnu abi saibin zubair ibnu awaam moo ko rey aswad ibnu obaydil asad ibnu Halal moom Hamzat ibnu Abdul Mutalib moo ko rey Haajib ibnu Saib moom Ali ibnu Abi Talib moo ko rey Uwaymiru ibnu Saib moom itamit Nu'man ibnu Malik moo ko rey ibnu Abi Sufyan moom Yazid ibnu Rafis moo ko rey ibnu Abi Sufyan gis nga ñaari doom baay ñoom ñëpp ñu rey leen ci xeer ci ci xare boobu moom Abu buradatu moo ko rey abu bardatu ibnu nayaar moo rey abdullah ibnu munzir ali ibnu abi taalibin moo rey xuzeyfat ibnu mughirata yaa ngi dégg sahib ibnu abi sanaan moo ko rey zuhair ibnu abi rifaa abu asad asid malik moo rey ibnu rabiata saib ibnu abi rifaa moom abdourahman ibnu awfin moo rey aid ibnu saib ibnu aw umaymatu moom hamzatu moom moo ko rey wala boog hamzatu moo ko jam ba mu ko jamee mu dem di laqatu di nëbbatu far dee fam la doon nëbbatu noonu yaa ngi dégg ak góor goo xamante ne turam mooy amir ak keneen koo xamante ne xiyaar la tudd ñaar fukk yi ak ñeent ñoo bokk ak abu jahlin njiir te ñu rey leen ci xare bobu non bo demé ci banu sahm ibnu amrun nga xamné amr ibnu as mi nga xamné sahaba saaba la woon ci yonent bi mom tamit famem jurom ñaar ñak nañ ko ca manam nañ ci nabi ibnu hajjaj ci la bokku ya ngi dégg ak euh, domam as ibnu nabi ibnu hajjaj mom tamit ci la bokkon ali ibn abi talib moko ray ya ngi dégg ak rakam mom as mi ibnu hajaj, itam mu tuddoon axuuna axuunata moom tamit ci la bokkoon Hamza moo ko rey abu aas ibnu xaysin ali ibnu abi ali ibnu abi moo ko rey aasib ibnu abi awfin abul yasir moo ko rey xaaris ibnu nabih ibnu hajjaaj sahib ibnu sanaan moo ko rey amr ibnu awfin yaa ngi dégg abdullah ibnu salma moo ko rey boo demee ci famille boobu ñuy tuddee amiri yaa ngi dégg lu ay ñoom ñaar lañ ci ñàkk muawiyatu ibnu amir moom ali ibnu abi taalibin moo ko rey ak maabad ibnu wahbin moom xaalid iyaasi moo ko rey waaye itam boo demee ci beneen famille bu ñuy woowee jumh ibnu amrun ibnu hasibin ñoom ñeent lañ ca ñàkk muy umayatu ibnu xalaf ibnu wahbin yaa ngi dégg E ibnu kousafata ibnu jamhil moom waaju bokk ca ansar moom moo ko rey keñanti ak doomam ali ibnu umayatu ibnu xalaf umayatu mii yaakaar naa xam ngeen ko moom moo nekkoon sangab bilal ibnu rabah yaa ngi dégg moom benn waaju bokkoon ca ansar moo ko rey ak doomam biñu doon woowe ali ibnu umayatu ibnu xalaf moom ammar ibnu yasir moo ko rey yaa ngi dégg ak awsa ibnu muirata ibnu Luzaana moom Ali ibnu Abi Taalib moo ko rey ak Siirat ibnu Malik moom nag kenn xamul ku ko rey dañoo gis rek mu dee ci xare boobu noonu lii mooy li nga xam ne jot naa xew wala lenn la ci li jot xew ci xare Badar wax naa la jullit ñi fukk ak ñeent kese lañ ci ñàkk bëri na sax lool ndax jullit benn jullit rek dafay wécceeku lu bëree bari waaye yéeféer yi ak seen way dëgg-dëgg su doon rek euh, doole moo man dëgg ni kon ñoom ñooy gañe waaye dëgg dëgg dëgg rek moom mooy li nga xam ne moom moo man doole yaa ngi dégg ndax wone na ko euh, euh, sahaba yi dañoo nekkoon ci dëgg ànd ak yàlla ànd ak yonentu sallallahu alayhi wasallam am pas-pas lool bu jul loolu junni nit di xeex ak ñetti téeméeri nit dëgg-dëgg loolu ngëm la ak pas-pas ak mbëggeel gu dëggu ci ñoom ñoom ñoo amat dina ji nag ba mu agsi fii su benee ne danaa la wax ñi nga xam ne ñoom lañu ñu jàpp juróom-ñaar fukk yi nga xam ne jàpp nañ leen ci biir xare bi yóbbu leen def leen ay ay ay jaam gannaaw ga ñii ñu bàyyi leen ñii nangam nangam la ca mënta xewee incha allah danaa leen ko xàggee ñi bañ audio bi gudd waaye ndikoon danañ indi turu ñooñu ñëpp nag Badar nag boo gisee ñii di ko waxtaanee c'est pour dëgëral suñu ngëm la waaye soo gisee ñii di ko waxtaanee c'est pour ñu xam fi lislaam tàmbalee la ndax tey ñun ñu ngi nii amul ci kenn koo xamante ne mas ngaa ñàkk sa we ci lislaam amut waaye nga gis ñoo xamante ne seen bakkan lañ ca ñàkk ñii seeni i bët ñii seen i tànk ñii seen seeni bëñ yaa ngi dégg ñii seen alal ñii seen i doom ñii seen i seen i seeni jëmm ku nekk rek am na loo ñàkk ci lislaam ca jamono jooja waaye ñun tey da ngay tëdd yeewu wax lu la neex ci lislaam wala def lu la neex ci lislaam yaa ngi dégg te kenn du la wax dara kon nag bu léeg lekkee alom na ko gërëmee cooy ñoom ñooñu dimbale xettali ñu ba tey ñun ñu mën a jot ci diine boobu noonu ñu ngi ñaan yàlla fayal ñu leen ñu ñaan yàlla gërëmal ñi leen ñu ñaan yàlla may ñu ngëm-ngëm ak pas-pas boo xamee ne danañu ko toppee yàlla ragalee ko ko wa ma zalik alallahi bi aziz assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh